mbokk internet yi safoo teewlu info 2S TV dal leen ak jàmm ci xibaar li la di ay kàddu ki nga xam ne moom mooy Maimouna Bousso bokk a Yewwi Askan Wi moom nag daal dina àddu jëmale ci mbirum Ousmane Sonko gannaaw nag ba mu bokkulee ci élection palum njiitum réew yi ñu dégmal ci noonu nag mu ngay sàkku ngir rek ñi nga xam ne ñoom ñee patriote yi ñu daal ji ah, booloo ah, doon ah, benn waaye tamit ñu jàppalante seeni biir te ñi nga xam ne nag ñoom ñoo jàpp ne kii di Jomaay mooy Sonko ñu daal di leen ko nangul rek ba noppi daal di déglu ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ko ndax nag nee na nit kenn waru ko jiital ba pare di koy faagaagal te nag nee na patriote yi nañu fexe rek dem jëli li nga xam ne moom mooy kart yi ndax nag ñoom dañoo xam ne état bu Sénégal dafa xam ne rek ñoom ñooy gañ moo tax rek ñuy teg lu métti lii daal di ko teg ci ndoddu kii di Ousmane Sonko mu daal di ci dolli ni nag nañu def benn say daal di booloo doon benn waaye nag nee na ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ñaari groupe moo am ci seeni camp nee ngay nax seeni bopp ndax nag loole amut nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy jubilé jamono ji dañoo jàpp ne rek jubilé wuñu ngir eh, loo xamante ne daf leen neex waaye nag dañuy jubilé ngir ki nga xam ne rek moom mooy jomaay ci jàpp nañ ni jomaay mooy sonko muy sàkku nag ci ci ñi nga xam ne ñoom ñooy patriote yi ñu daal di eh, joxante eh, loxo ba noppi nag jël seeni maire bile def ko force ba tax rek eh, ñu mën a gagné waaye ñu ànd booloo doon benn ngir rek ñu mun a am ndam ndax xam nañ ni nag dañuy am ndam loolu rek moo waral yéen yi ñuy tekk di leen di jaajëfal bu baax te di leen di wax ngeen abonné wuti suñu chaîne Info 2S TV ngir ngeen di wéy di am suñuy xibaar.